dalee sama kaw ñu bëre ma daan ka. bu taxawee. taxawee ma fekk ka fa duma ka daan amuñu tiitukaay ci kaw suuf waxuma la tiitukaay ci làmm de ci àdduna ñun dara safuñu si. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen koy rek chaque semaine ak Gris 2 Thiat Armé combat bi nag ay fan moo ci des combat bi ñu doon wax ay mois huit mois sept mois ñu doon wax ay trois mois ba léegi ay fan yu néew des ci tey nag Gris 2 lañ jàkkaarloo mu doon jàkkaarloo ak ay supporters am wala boog ay fan club président fans club supporters yi ñu waxtaan niñ dëgmale seen combat bi ginnaaw mbër bi bu mu waajee ba pare wala book bi mu waxee ni waaj na. ba pare na dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñi suivre Lutte TV point com ñu waxtaan ak moom rek ba léegi ci combat bi fan la toll ci waajtaay bi Maodo maa ngi lay nuyu dinañ dem tamit seetaan ay mbokkam ñu wax ci combat bi fan la leen toll ak kan mooy Maodo loolu yëpp fas nañ yéene war leen ko ci Lutte TV Maodo maa ngi lay nuyu. ñu ngi sant yàlla bu baax Lamine di la fay di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> di baalu ak ñëpp ci koor gi rek. di wax rek ne leen yi di gërëm ñëpp képp koo xamante ne rek huit mois wu combat yi nga si Gris 2 muy depuis ville France père Babacar Seck ak njabootam yëpp waaw Ndeye Seck soxnaam xam nga ñoom Diaz Binta Mody Ba xam nga ñoom Dikke jabaram Julie bébé Chérif xam nga di nuyu gaa yëpp foofu waa Lyon ak waa ville France foofu lañ defee première bi ñëw Sénégal tamit nuyu waa écurie Fass président Abass Ndoye taxawaayam yàlla na ko yàlla fay xam nga père Thierno Dramé père Malick Guèye père Mbaye Guèye père Tafa Guèye ak toute l'écurie entraîneur yëpp mbay Ibrahima Mbaye Guèye Camara Socé ak équipe mboolem mbër rek bu nekk écurie Fass mm-hmm. waaw. say président Fans ñëw waxtaan ak yow waxtaanu biir nekk lan lañ mën a xam ci li ngeen doon waxtaane ci tënk. waa tey dañ doon ñëw rek pour ñaax ma rek wan na ma ne ma ni nekkee woon démb ñu ngi si sa ginnaaw tey tamit ñu daan pare xool seen bër fa la toll xam nga moom ma affaire yi toll ak ñi leen di jàppale fi ñu toll ak yooyu wax man waaw ndax ñun kon rek niñ ko tàmmee di wax ñun amuñu ay supporter ñun ay frère la ñu am mhm. li di wax toujours rek ñu tolof tolof yu bëri da leen di gis ñoom ñuy taxaw toujours ci suñu wet loolu da lay wan ne ñun yu yeneen mbër yi am ay fan sax yooyu ñun amuñu loolu ñun ay frère lañu am ak ay sœur ñoo xamante ne ñoo juddoondoo yarandoo màggandoo. waxtaan nañoo ak yow yëpp ñu ngi ci ginnaaw. waaw ne pare nañu sur tous les plans. Hmm. man tamit ma ne leen pare naa. yow nga ni leen pare nga Medina boobu nga juddoo. du hmm. nga juddoo. waaw école nga njëkk jaar wala da ngaa juddoo ba xàmmee rek ñu yóbbu la daara. non man jàng naa Gibraltar 2 laa commencé tuuti rek. xam nga jàng naa tuuti rek école dem mais sama yaay moom xam nga ne préféré am alxuraan la suñu kër jigéen ñi sax sànni woon yóbbu woon na leen daara ja <laughs> kon góor ñi taxuñu di wax ndax période boobu Medina xawoon na yëngutu tuuti te moom jigéen la woon suñu papa génn àdduna solution bi mu amoon rek mooy mu yóbbu ñu daara mm-hmm. te tey tamit réccu wuñ ko daara ji fan ndar daara ja ma daara si mm-hmm. muy ndeyu daara yi muy daara joo xamante ne ëpp na sax deux siècles xam nga. Mhm. ñun fa la jaar muy daara ju mag boo xam ne àdduna bi yëpp. bi nga demee kan nga fa fekkoon ci mbokk sa mag wala. waaw boobu nag ñu ko demoon sama turandoo mag bu jigéen bi Nafi. Mhm. Adja Nafi Satu Diop. muy nitu yàlla di jigéen. di nitu yàlla maa ngi nuyu maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla yàlla yeesal yéen mën a ci kawam ak jigéen la woon waaye nitu yàlla bu mag la woon bu mënoon alquran. bu mokkal alxuraan demoon na bàyyi bëtam du gis mais dama daan ñëw toog jóge daara ja ñëw toog ci néegam di ko nuyu fekk muy tari ay saar yu kawe di tari alxuraan comme ndox te boobu bëtam yi gisatul woon. Hmm. maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam maam Farma seen ak ñoom Ablaye Sène Arouna. nga dem fekk fa Nafi sama. dem fekk fa Nafi mais bokkuñu woon Daara. ok waaw moom Daara Alaaji Mohsin la nekkoon. ki ma loon jàngal ak moom ki ko loon jàngal ñoo bokk ndey ak baay. mais Daara yi bokkul. léegi nañ dem seetaan ñoom tamit lu ñu wax ki loolu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وأخرى تحبونها نصر من الله وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله waaw ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu téléspectateur Lutte TV yëpp di la nuyu yow Lamine di nuyu ñi nga àndal ñëpp waaw di sant yàlla nag bu baax waaw man moom maay maay El Hadj Baye Dame Diène voilà. lan nga si Gris 2. waaw man rakkam laa ne rakku Gris 2 laa man maay caat. voilà yaay caat loo ñu mën a wax si Gris 2. Gris 2 ah maam Maodo de moom wax ci moom dina dina yo dina jafe du jafe parce que nekk na nit koo xam ni ku am yar la am teggin respecté ñëpp bëgg ñëpp rawatina ñun ñi nga xam ne nag ñoo ay rakkam. ak sama yaay bëgg ko trop waaw bëgg ñu yërëm ñu tamit ñun ñii ñëpp ay rakkam lañ mais foo ko fekk ak ñun day mel ni sax ay moroom lañ lépp ci oyofam ak mbaaxam rek waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullah taalaa wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu leen waa Lutte TV di nuyu lépp jullit. di ñaanal yàlla maam Maodo Jonn giri de mooy sama mooy maa yaayam Fatou Fatou Ngiraan di ko ñaanal bu baax di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di sant yàlla di sant sama woy ñaari woy jur yal na leen yàlla xaare àjjana ji gën a seen woy jur yi di aadama jonn jur leen itam yal na ko yàlla may àjjana firdawsi yaama di leen ñaanal yàlla rek waaw di ñaanal sama njaboot gépp nag di ñaanal sa njaboot gépp Guiers 2 combat balaa ñuy dem ci combat bi lan nga ñu mën a wax ci Guiers 2 ak lan moo la gën a marqué ci moom ban genre doom la ah Guiers moom doom di bëgg yaayam yërëmi rakkam ak i magam ndax Guiers 2 de lu ma ci wax rek jàmbur ñi sax waxal ma ko ndax ngir nit la koo xam ne nitu jàng nit la koo ne nit ku bëgg nit ku bëgg aju bokkam ku bëgg yaayam amul yemukaay ci ak nag noonu mu mel ci man nag noonu la mel ci ay rakkam ak ay magam dafa bari kersa nit kersa la waaw nit kersa la a baax. lan moo la gën a baax tey ci moom de bi mu nekkee xale bi dafa dafa dafa tóoyoon. te yàgg ne doon nitu jàmm koo xam ne. ndeysaan bu bu musaana xëy ba ma ko jox ko ndékki ba mu ndékki ba suur day tëb di tëb di dal di tëb di dal di tëb di ba ma ko ne bàyyi li ngay dem mu ne mën a antale bu ko defee ñëpp di ko reetaan mën a antale ba ñàkk tooy xëpp moo tax xale ah ñaare boo ko yoree muy xale bu ndaw rek lu mu nar a doon ëllëg da ngay gis mu mu di ko fowe waaye entraînement la daan def bu mu nekkee lu tuuti nag boobu nga xam ne lu ndaw ndaw la day tëb di dal ba ñàkk tooy xëpp soo ko nee looy doo bàyyi li la mën a xarit la xamoo nit yàlla dina leen boole ngeen bokk ndey ak bàyyi Maodo bëgguma sax di wax ci moom parce que su may wax ci moom li arab naan al aynu talma wal qalbu taazan arab dafa na bët ak xol ñoo commun dañu communiquer te. Euh, sa rongoñ bu génnee rek sa xol moo fees. ñaar mooy tax mu fees mooy nga mer wala nga kontaan moo do su may wax ci moom su ma rakk la nag sama rakk at sama macha allah suma quatrième rakk la li ma ko magee saxaar mënu ko daw waaye cofel bi ma am ci moom bëgguma di xuus du xuus jëmale ci moom parce que su ma ko defee rek su ma xol day fees. Mhm. parce que euh, dañu bëggante te mu nekk lu dëggu du ci ay wax rek. Mor même bu waxul woon ay kàddu jëmale ko ci man. xam naa ni daf ma ñeewantal. maa ngi gi ñaanal Gris 2 ndam ndax Gris fii nga ñëw di ko fi laajte fi nga ko war a laajte fii la juddoo fi lañ ko ngénte fii la dëkkoon si biir kër gi tey la jamono neex ñu dem waaye nag ñu sant man nag yàlla dogal ci man ba yaayam ñëwee ci kër gi maamam dénk ma ko man dañ ma ko dénk dañ ma dénk seen yaay Fatou Ngiraan xujjakaa ko jur xujjaka xujja ba ñëw dénk ma Fatou Ngiraan ma dëkk ci kër gi tam mu dénk ma ko kon doomam yi barke rek laa bëgg ci ñoom moom laay ñaan ci ñoom yal na ma ko yàlla defal. xale la boo xam ne ni ngeen ko gisee ci télé bi noonu la ma sa amul zone de turbulence ci li ñu xam ci moom diiru mu nekk ci kër gi ba ba muy dem daar kenn musul man mook fi laa nekk maa ngi bëgg a jëm mag te ñii ñooy sam mag musuma gis fu mu xeexe musuma gis ku ñëw boole si kon amul jaar jaalu xale bu ñagas bu ñaaw lu ñuy wax naan dep na fi li ci fekk giri sax fekku ko ci giri bu mag moom am na jaar jaar boo xam ne moom jëriyaloon daan na xeex daan na kii mais Maodo moom macha allah kenn musul xam ci moom lool. giri de xale bu am amul problème xale bu jàpp ñàmburam la xale bu mës a jàpp la moom laa xamee man. asalaamaaleykum maa ngi tudd Malick Ndoye ñu may woowee Kapi gën ma xam ci turu Kapi. dëkk fii Medina Thierry. waaw nga lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw Gris 2 moom pour man wax ci moom dina xaw a yomb tuuti. wax dëgg yàlla booy bu booy bu la booy bu baax la yaru na et puis xam ne ni muy comporté ak nit surtout seen baay sama nijaay la na si kër gi tam ñu dénk ma ko. kon xam nga kooku sama kos bos la spécial yal na leen yàlla defal ndam nag papam mooy Adama Jonn di imam ci jàkk ji du yaa ñu julli ba génn papaama fi daan jiite du yaa ñu julli ba génn mm-hmm. papaama daan jiite si jàkk ji papaam moo yoroon école arabe fii di jàngal suñuy doom fii la ka école bi nekkoon. franchement parler moom euh, football kat la nag. football kat la waaw parce que am na je me je am na benn tournoi boo xamante ne euh, non euh, boobu noonu sax giri la woon mais après moom tamit euh, saa bu ñu daan football fii da ngay gis ne ne maanaam ko sport bi nekk si yaramam la waaw parce que dafa am facilité par rapport ak lourdeur am ko te moom wax fa dëgg yàlla moom moom depuis que ba mu nekkee xale ba léegi dafa mës a dafa dafa dafa a big daal. waaw dafa mës a am yaram. mooy nit la boo xamante ne nit ku baax nit ku yaru nit ku bëgg doomu aadama waaw bref loolu laa xam ci moom loolu la ñëpp d'ailleurs xam ci moom ngeen mm-hmm. a nekkandoo woon di waa école mm-hmm. boobu mi ngi def seen doon maa ngi nekk maa ngi nekk sixième mais dama daan def dama daan tooy waa sama classe su tooñee heure récréation bu jotee buntu buntu buntu classe am laay dem taxaw di ko xaar waaye wàccee lonku ma nag xam nga ngan na ngandul moom genre moom dafa mës a am gabari quoi par rapport ak ñeneen ñi muy àndal bu ñu daan dem école tamit maa ngi rappelé wu dama daan bañ ku ma moom dafa mën noggatu nit en fait man man moom loolu laa gis comme luy ci moom dafa mën a noggatuwaate dañuy ànd bu ñu génnee ci buntu kër gi rek daf may lonk te man dama doon bañ mu lonk woon ndax loolu bi da doon diis ci man ak man na man ndawoon quoi mm. daf may lonk ba ñu yegg damay jooy ba ñu yegg école yooyu laa xam ne daan ko def. lu koy merloo lu koy merloo daal mooy nga wax ci giri dara giri moom daf ko bëgg ba boo ko gisee sax da yaakaar ni man mii jur gi ni sax moom moo ma gën a bëgg giri faatu ma lee tamit sama caat mi noon la mel ci moom moom daal buggul kenn wax dara kenn buggul kenn mer buggul kenn def dara su dugg cee rek li muy njëkk xool mooy xool sama xar xar ma ndax man tey mm, mm, belli naa wala dama am dara bu ma gisee moo xaw a yaay lan moo la jot da feebar lan moo lay métti loolu lay jëkk xam naa ni daf ma ñeewantal te dañu bokk ay jikko parce que nit mun nga bokk moom ndey ak baay euh, te doo nit nga bokk moom ndey ak baay te doo leen ay jikko moo tax dañu dama ko mag ba pare euh, sama cofeel am dox suñu diggante man ak moom te loolu yàllaa koy def ay nit da ngeen bokk ndey ak bàyyi mais daf ci am yàlla daf ci boole ñoo xam ne ñoo gën a déggoo ñoo waaw dañuy day fekk nag en général day fekk ngeen bokk ay jikko. Ah, ma si laajee dinaa sa Gris 2 day xale boo xam ne xale bu am jom la am fulla am fayda am lislaam oyof lool yaakaar naa ni oyof bi sax ba mu doonee liir la la ko topp ba liir ndax ba mu boo ko sangee tëral ko fi mu ne nemm lay nemm danaan nemm danga ñëwoo yëkkati ko nàmpal ko du jooy du def dara yaakaar naa nag looloo ko topp ba liir bañ koy yóbbu daara sept ans la at ba at la daan ñëw fii Dakar tabaski ba tabaski la daan ñëw jàng jàngam yaakaar naa ni ba mu fa nekkee di jàng wàcc na ñeent yoon alxuraan kon kooku boobu nit yaakaar naa ni jàmm rek lay am ndax yaakaar naa ni Gris 2 moom day fekk ñu di néewal doole sax muy jooy ndax bëggul kii néewal doomu aadama doole dara bëggul ko koy néewal doole. bëgg. ah bëgg na Gris 2 de bëgg na ceeb bu lool de booy togg sax danaa la looy togg boo ne ceeb bu xonk mu ne yaay ndax ceeb xonk mooy tam nee na boo baxaloon tiga dege bi sif ko si ñànk tamit sax mu lay ko mm. na ko bu mu nekkee moom. baax yaru. respecté ay mag respecté pour ku ci biir xale yu ndaw ci kër gi sa doyul rek sa beneen bopp ak baax ak respect daal xam naa ko ci biir. moom xam nga moom dalul nitu ay moom dalul comme li Nafi soxna Nafi di wax rek naan Maodo moom lenn rek la xam ci moom mooy day fekk nit ñu koy e néewal doole sax moom mu jël jënd xeex bi ci yow. waaw yaakaar naa nag loolu soxna Nafi bi mu nekkaloon daara ja moo ci mën a wax lu leer naa ngi mhm. waaw non noggatu yi ba tey ji ba tey ji bu ma fekkee ma toog tam noggatuwuma ba sama xol bi jeex non du ma bàyyi. Hmm. moom koy noggatu yi ba tey ji sax moom moo la gën gën a marqué ci moom mooy baax gi mu baax bëgg yaayam bu mu bëgg yaayam bëgg ay raxas surtout ma topp ci moom tey Gris 2 gis na ma ma benn confiance bi nga xamante ne. franchement lu ma marqué la loo xam ne man kese damay toog sax sama xol di ci neex torop torop torop wóoluma ci lépp waaw man moom pour moom sama xel day dal mais bon parce que sama reenu xol mooy bëree daal mu war a koo xamante ne ñëpp dañu ne ngir ñu am na combat adversaire bi boo ko ak ñu ngeen bëree nan ngeen koy yabee ak nan ngeen ko gis instant bi pare na jom ji mu ci daan def ak fayda ji waa dem bëre bu laajee bëre mu bëre bu laajee dóor mu dóor bu laajee dóor mu dóor loolu dafa ñun def ko gënee sax parce laa bëgg na ñoom ñoom ñëpp ñoom ànd ak dara stressé nit ñi moo tax mu naan daa bëgg dem ànd yàlla ko yàlla épargner loolu yàlla épargner ko sax adversaire ñoom ñaar ñu bëre bëri bu neex te kenn bañ a gaañ kenn a loolu ci barke Seydina Mohamed leen ñoom ñaan ñëpp waaye nag Gris 2 nag jël ndam dama leen di wax ne leen man sama fekke ak sama wuute ndax dundu dawul dundu dem day dundu gàtt na waaye li ma gënal ci sama àdduna bis bu ma génnee àdduna bàyyi leen ci àdduna rek yéen ngeen di nit ñu booloo ñu ànd ñoo xamante ni du ñu tàqalikoo mukk loolu laa gën a bëgg ci samay ba ci samay goro dama leen di taaj di leen wax ne leen bu kenn xam doom ju koy jëlut ku ki koy jëlut na ñëpp ànd mbooloo doon benn xam nañu jàmm jooju ci man moo tax mboolem doom ju ma jur rek nii la mel comme gi comme gi dëdd dañu bëgg jàmm bu jëm ci combat waaw nit am na combat bu jafe dan mhm. nga koy ñebee ci combat bi combat bi comme ni mu ko daan bëree rek ndax Gris 2 moom nit la koo xam ne ay xeex ak ay sax moom duy mbiram xam naa dafa mënul ñàkk ci combat xëy na waaye moom du du nitu ay boo dama leen di digal suñuy dem làmb dama leen di wax ne leen même ah, même euh, signature contrat gàttal leen seeni waxta mu rafet ndax kilifa yëpp dañ leen di déglu ndax doomi kilifa ngeen seen baay dafay nit koo xam ne macha allah macha allah maam Abdou Aziz si ko daan da ko bëggoon moom it mu bëgg ko moo doon imaamu jumaay cëriñ doon jiite tamit ci cinéma El Mansour jumaa ji fa nekk moom moo fa daan jiite julli euh, kii bu nekk ajjuma bu ne kon xam nga ni kooku doomu kilifa la xëy na lii day destin ci ñoom mais seeni maam yépp alxuraan lañu xam xamuñu làmb xamuñu dara alxuraan moom lañu doon moom lañu xam jàng rek ba ci sama caat ñuy toog ñuy bàyyi daam Fass la jàngi alxuraan mu ngi mokkal na ba ñibbisi mu ngi jàng xam-xam ñun alxuraan rek lañ xam xay na nag yàlla lépp lu mu def ci yow loolu day liggéey. kon est-ce mu bëri. Ah, bëri nag moom mosuma ko bëgg ci ñoom mosuma ko bëgg ci ñoom Gris Bordeaux moo ko jëkkee ah lu nekk daj naa ko ci moom pour mu bañ a bëri mais keroog ba mu toogee Alaaji Baye Dame Diène xarit papaam la woon ne ko daal papa man daal soxlawu ma dara ci sama àdduna lu dul teral sama yaay ndax sama papa dafa teel a génn àdduna muy koo xam ne jàmbaar la woon yoruñu yor bu rafet yaruñu yar bu rafet ndax euh, xale bi maa ngi maa ngi euh, maa ngi dégg baat yu ñuy wax ci télé yi ak rajo yi ne jigéen mënta yar góor mais non man de d'accord ma ci lool man samay doom yu góor yi bi seen papa génn àdduna ma euh, ma Gris 2 mi xamu papaam presque ñoom ñëpp ay xale yu tuuti faatu mii di caat bi mu feree weer wi mu feree la papaam gaañu kon ñooñu ay xale lañ ma bàyyi ma yar ci diine ndax ñoom ñëpp dama leen ne daal di bombardé rek génne leen cëriñ yóbbu leen euh, euh, fële ñu jàngi euh, ndaar. waaw nag loo koy wax moom lan ngay wax adversaire ndax nee na bëgg na ñoom ñaan ñëpp ñu dem ba pare. déedéet déedéet dem ardo dem ardo moom yàlla bu mu ci am maa ngi koy ñaan ci kàttanu yàlla ak baaxu Seydina Muhammad yàlla bu mu ci am yàlla nañu ko bëree mu sedd guy ndax samay ñaari doom lañu nag yoo xam ne dama leen di ñaanal ñoom ñaar ñëpp. yàlla sàmm leen may leen wér may leen wér gu yaram ba bés ba ñu dem làmb ji ci jàmm bëri ci jàmm ah mam Maodo ñoon yàlla may ko ndam seddu guy na mu daan amee yàlla bu deret tuuru yàlla bu kenn gaañu yàlla bu kenn fakkastal te supporters yi nag ak ci ñoom ñiy bëri yal na leen yàlla sàmm ba ñu bëri ci jàmm ak salaam loolu rek laay ñaan am na solo yal na leen ko yàlla defal ndax ah, Reug Reug sama sama doom la maam comme ni maam Maodo Dior nekk sama doom ndax dañuy wut rek dañuy wut lu ñu tedde ak lu ñu teral seeni i wayjur kon yal na leen ko yàlla may ci làmb ji may ko ci leen koy takk làmb euh, ngemb di nekk ci làmb ji rek yal na la yàlla may jàmm ah ngay bëre rek di daan sa doole di teral say wayjur ak say mbokk. ñoo ko gisandoo. déglu nga maire bi mu wax ko Gris Bordeaux ak Feuz ñoom ñëpp dégg nga leen ñu wax. say sa ak ak sa sa rakk yaay la xaw ma. ki nga ki ne ceeb bu xonk rek nga bëggoon bi nga nekk. waaw moom mooy sunu yaay waaw Mali. maire bi ñëpp. avant tout maire maire bi moom. kon li may wax rek moom dafa baax rek di wax mais moom moom ñëpp xam nañ ne li mu li mu daj ci li mu daj ci doom doom mënu ko ko fayaat da ngay jéem rek waaw mais moom dañ koy ñaanal rek yàlla guddal fanam may ko wér. waaw man bëgguma di prononcé wu ci moom man boo gisee samay wax du ko ci dugal parce que nit la koo xamante xam naa fu mu toll ci man xam naa tamit yërëmatu moom moom mënul gëm ne <laughs> ba fii ma ante yow mënul gëm ne mbër laa waaw moom booy ñaana sax danaan ma da nga bëri kersa moo tax ma lay ragalal gàcce ndax xam naa ne boo xamee gàcce xamoo foo xamoo xamoo noo koy dundee yooyu moom foofu la may xalaatee moom pour moom nit laa ko xamante ne lu nekk lépp daal lu metti daf ma koy jombale. daf waaw tax waaw moom moom foofu lay waxee ak man moom du sax xalaatul ci man sax benn leneen leneen leneen dima arrivé ci wàll bi may def. ci ay biir waxam nee na njabootam yëpp nangu nañ ni yow la féeteel nee na njaboot yëpp nangu nañ ko say mag ak say rakk yëpp. waaw parce njaboot gi yëpp xam nañ ne maa si tudd Alaaji Maalik te moom dafa bëgg Seydi Alaaji Maalik bëgg sama tulandoo en même temps tamit. sama xarit la laal sama yaay moom wax dëgg fa yàlla sama sama sama xarit la waaw sama xarit la boo xamante daal leer na ma leer na ma ne daal am na daal am na daal moom foo xamante ne teg na ma fa tama nit te moom képp ku mu jur sax xaritam nga mm-hmm. moom noonu la mel ku mu wéetal rek jàpp nga moom la gën a fonk. a fonk. waaw balaa maa wax Gris Bordeaux may wax keneen taawu kër gi. Moustapha taawu kër moom mooy mooy baay rek waaw moom it lépp lu mu wax rek baaxam la rek. waaw nee na dafa amoon lu ko metti bi nga nekkee mbër bëggul woon nga bëri. <coughs> wax na dëgg ndax mooy baay te ñun tey kilifa yi xam sama papa koo dem na ko di way sama papa danaa la la jëw ngeen seen papa bu fi nekkoon de doo leen ko xalaatu bëri koo xamante ne addunaam yëpp da ko doon jooy. ngir yàlla danaan toog di tudd yàlla rek du jooy yàlla du nit yàlla du nit la daan wax mu jum jamonoom yëpp ak toll ndax fi mu tolloon ci sunu boroom nit yàlla am kenn werantewu ko woon kon nag buñ bokkee ci njabootam moom muy taaw gën ñoo xam sunu baap gën ñoo xam sunu baap ndax moom xam naa ne ni mu xamee sunu baap xam naa ñun buñ ko ko xamee woon mën na am sax kon bërëb bi duñ ci dugg nga des fois da ngay dem ba ci kilifa gu mag nga dem xamoo ne sax xam na sa papa sax nga tudd tuuram rek mun na la ah lii ma yor nii sa baay moom ko jox xam kon loolu nga xamante ne paa bi kon tolloon na ci beneen dimension. tolloon na ci beneen dimension Gris Bordeaux moom dañ koy falaas lañ koy lañuy dóor te ci kaawam parce que yàgg nañ ko dégg muy wax ci yow yow tamit yàgg nañ laa dégg ngay wax ci moom doon seetaan nañ vidéo am. Mhm. soxna yi sa rakku yaay. nee na ceeb bu xonk ak buñ taalee nga ñëw jegey waañ bi lu nee na nga ne ceeb bu xonk ah Mbëli moom sunu yaay la moom moom moom mooy sunu yaay ndax ñun ñëpp moo ñu moo ñu boot lépp ci àdduna waaw moom moom sunu yaay la moom tamit mérite bi meer ngi daan am bu ko raw la am waaw moom léppam ci ñun la war a ci ñun la war a jóge waaw képp koo xamante ne sama yaay jur na la c'est lépp lépp Mbëli ci yow la war a jóge parce que parce que moom parce que moom dafa sonn ci ñun ci ñun ñëpp nag waaw moo tax moom li muy wax noonu ay souvenir la yoo xamante moom xam na ko parce que moom moom moo baax ci ñun waaw moo baax ci ñun. mais ñaari wax ban moo la ci dàqal ceeb bu xonk ak maafe. <laughs> mais loolu avant ma doon la mais man ba ma xësee jugee daara moom amatuma pala. Hmm. waaw ba ma jugee ba ma demee daara. ji ma xam ba nga jugee daara ji. ba ma nekkee xale sax sama ma sa mel yambar. waaw bu ma xiif la bu ma suuree nelaw. sa sœur yi nag li ñu wax. waaw Fatou. ak Nafi waaw. waaw Nafi Nafi moom man ak moom dañuy yàgg ndax depuis Ndar la ñoo bokkoon di jàng daara. moom mu nekk kër turandoo man may jàng ci daara ji kon moom sama yaay daara la woon. nee na daara ji bi mu fi nekkee yow yaa doon bind yaa ko doon bindal aliwo mu jékki-jékki rek dégg na ci làmb yi. o ba jugee ndar moo ñëw fekk mu yor daara yi fii woo na ma ko ne ma daara ji yow laa ko fi doon téyel xam nga dama doon xaar nga ñëw rek. nga ñëw sa daara la ñëwal gérer affaire yooyu ñu nit boobu gëmoon nañ ko xalaatoon nañ ko mais xam nga rek yàlla moom desin moom yàlla moom koy def. ba mu defee tamit ñu nangu ko def tamit kéem talaay kàttan ba même bu dee li ñuy def rafetul làmb ji ñuy def rafetul dinañ ci def suñu kéem talaay kàttan ba bañ cee am benn image bu ñaaw boo xamante ne wala benn wax bu ñaaw wala benn kàdd bu ñaaw boo xamante ne ëllëg daf ñuy topp. Hmm. wala kilifa yi ñu yar buñ ko gisee urus yooyu daal la ñuy jéem. Hmm. waaw parce que que dugg nañ ci ba pare te tamit am ci fierté parce que sport la. waaw euh, ñu dugg ci xam nga te te réccuwuñ ko tamit. Mm-hmm. mais moom moom ba ñu ñëwee maa ko accompagné woon ci daara ci. waaw ndax moom it ku am ku ñu ameel njukkal la boo xamante ne ñun ameel nañ ko ko. yeneen réaction yi tamit gis nañ ci sa jabaru mag ak waa Médina. Mm-hmm. gis nañ ci ay maire Médina ay grand ay pa ñoom ñëpp benn kàddu bi la wax mooy Gris dafa yaru dafa def kan moo la yar. waaw man man daara ja laa parce que man moom avant mën na am tey bu ma nekkoon Médina musuma dem daara dew ma fenn kon dinaa gën a tàng nii quoi ndax avant ma doon dem Médina avant ma doon dem Ndar ngax laa tuddoon. ngax lu andi woon ngax bi turu ngax bi. ngax bi xaw ma sax mais surnom la woon rek mais ngax bi daal ñëpp ngax lañ xamoon. jënd ay xeex nag. non jënd ay xeex moom yooyu affaire. xale la affaire xale la woon dof dof lo loolu Agawa moo koy indi woon daara ja am na benn maa ngi koy nuyu de passage ba léegi ñoo bokkoon di jàng alxuraan léegi mu ngi Espagne xam nga moom moo indi woon yooyu ay jaay ma xeex bi si moom lañ doon jëlee yooyu rek ku ñu gis naa ay ñu gis ngay xeex néew doole ñaan la ay jaay ma xeex beeg yooyu yooyu moom xam nga ne yëfu xale la. Mhm. ginnaaw bi nga dégloo témoignage yëpp. Mhm. waa Medina def ko yii sa famille def ko lan la la def. li may seetaan yëpp lan la la def lu lay yokk jom la wala loo xamante ne da nga ciy gis sa bopp la génn fii commencé ngand ngandlu parce que sama famille <laughs> moom sama àdduna moom xam naa ne xaw ma lan la ma yàlla mën a may ci àdduna ba tax may ngand ngandlu lool moom gisuma ko mën naa ngand ngandlu nag si sama ay biir morom ay man bu ma nekkee samay biir morom samay biir morom boo ma fa fekkee moom ñooñ boo leen demee ne leen Maodo du wax wala dafa kii dinañ na la déedéet moo gën a bëri wax fii waa parce que sama ay morom lañu mais comme nii waaye moi ngan ngandalu nii ah vraiment wala di loolu moom gëw ma ne yàlla mën na maa may loo xamante ne dinaa yegg foofu parce que ñun dañu jaar dañu jaar fi nit ñëpp war a jaar xam nga xam lépp tamit. xam ay affaire ay détails xam ni àdduna doxee. kon affaire bi daal motivation la. waaw man man nu ma ko gisee ak li famille bi wax ci man encouragement rek la ma def. Hmm. mooy li gën a neex mooy say kilifa seedeel la ne jox nga leen cër xam nga te muy dëgg loolu tamit nga nga yokk ko rek nga yokk nga yokk ko rek laa gis parce que ñoom bu ma leen joxul cër kan laa war a jox cër. boo bu ma yaruwul seen kanam ci kanamu kan laa war a yaru ndax ñoom laa am tey bu ma juddoon yàlla indi ma ma laago du ma gis walla ma nekk benn tànk wala dara mm-hmm. teewul ñoom laay gis ñi ma xamanteel ci àdduna yëpp duma leen xam mm-hmm. ñoom laay xam kon bu ma yàlla mayee ma nekk nit ba tey génn ñetti nit ñeenti nit xam ma kon tamit ñoom tamit ñoom rek laay am ñoom laay jiital man daal ma famille ma priorité. waaw sa famille mooy sa priorité mm. léegi tey moom ay ngemb ak yooyu yëpp duñ ko wax mais danañ la laaj moraal bi nag fan la toll parce que combat bi ay fan yu néew moo ci des. moral bi Gris 2 est-ce que mu ngi nelaw ba Yann Noor. ci mm. lan la Gris 2 nekk instant bi waaw Gris man ay waxu moral man du ma ko tàmm man man ay moral dama koy dégg nii mais man mënuma ko xam lan mooy moral dëggantaan. ngir déew mooy koo xamante ne lu lu yàlla neex na ko def man xam lu ma xam ci bis mooy waaj préparer dem seen interroger combat bi moom musuma am combat bu mel nii mm. ndax dañ cee wax a wax a xam naa ba nit ñuy liir suñu man ak sama adversaire yëpp nit ñi ñuy seetaan sax sonn nañ si sunu kanam yi mais comme que contrat la dañ koy respecté. combat bi ko bi moo ko laaj lamb moo ko laaj te tamit promoteur bi daf ñu fay. te ku la fay dina la def loo sorti bu ko neex. waaw mais moral daal moom xaw ma ko man li ma xam mooy le jour ci wax dëgg yàlla yàkkamti naa ko ba mën lii leer leer ku si nekk ñu xam daal. Mm-hmm. waaw parce que ku si nekk liggéey nga. xam nga dem nga fi nga war a dem lépp man na. fan ak fan nga demagum dem nga Casamance Gambie Guinée Mali ak fan ak fan Nigéria est que dem nga fa sax. man man da xam naa ne barke Seydina Mohamed <laughs> ba ba dalee ba léegi dëkk yi ngay wax yëpp yëpp yëpp man musuma sax paase Touba Tiwaawan. ah dërëm Casamance ak barke alxuraan musuma am combat ji àdduna ba dem foofu. wala ba dem Mali wala ba dem ay yooyu noonu ba man daal man maa ngi noonu daal man daal yàlla daal mu bind ñu ngi ñu ma war a jàppal ñi may jàppale nag ñu ngi may jàppale. ñu ngi lay jàppale ñu ngi lay jàppale ñu ngi kontaan ñu ngi taxaw kilifa yëpp. ñu ngi lay ñaanal dëgg fa yàlla. mais combat bi tamit Gris 2 ku ne xam na ne laaj na mobilisation bu doy war mm-hmm. est-ce que mën nañoo xaar Gris def lu ëpp lim doon def. ah bien sûr parce que yaa ngi gis gars yi fii léegi volonté yi ñu ci jël ñu ngi bi gis du ñu ay du ñu ay waya wayaa de ay kilifa lañu ñoo xamante ne tey ku si nekk père de famille la bàyyi seen yiite yëpp ñoo nekk ci man pour di waaj loolu kon dañ koy bàyyi rek ci loxo Medina moom xam nañ ne xam nañ dër bi quoi. xam nañ bis bi tamit xam nañ bis bi ni mu toll. Mhm. tamit naa kenn du leen woo ci bis. waaw mhm. ah. lay wax promoteur bi du tëgg mu war a vingt ans ci seen. waaw Luc Nicolaï moom c'est un exemple de la jeunesse ak sénégalais yëpp si exemple la tamit ci biir làmb ñëpp ñëpp ñëpp ak age bu la yàlla mënti may nit la ku nit wala roy waaw parce que doomu adama la boo xamante ne day def si silence xam nga bëriwul bruit